maa ngi leen di fay. di la laaj li jiitu mooy lu sabab jotaay bi euh, li koy sabab mooy euh, bés bu mag bu ñuy waajal ci diggante sit ak Papa ku ne xam na ne taxaw na mais li taxaw ci bitti moom mën nga ne taxawul waaw ndax nag pour mu taxaw dëgg mooy foog mu officiel ñëw nañ nag fii nga xam ne mooy CNG pour combat bi ñu régulariser ko. bu jàllee nag lu la neex def xam nga def nañ face à face bu njëkk CNG ne bu mu amati combat bu ngeen régulariser tul bu ci kenn def face à face ñu ànd ci ak ñoom ndax waxtaan li neex boroom kër te ñoom lañ dénk léegi nag ñu bëgg bu ñu fi jógee tey promoteur bi foog ñu woo ñu wuy si ko lu mu ñu def loolu def ko loolu moo sabab suñuy jataay tey. kon booy boo ñu xel dal ni norme yi tax combat bi taxaw lépp seen côté matal ngeen. waaw xam nga Siteu ba mu ñëwee semaine ba la ñu génn wala bi ci topp. moom ñëw na fi CNG ba renouveler la licence am bi ma ñëw indi naa ko Sow moo desoon ndax écurie bu bees bi mu doon bi mu sos moom it euh, li ko waroon def na ko ba it licence am nekk na raaj loolu moo waral tey ci lañ war a taxaw nag pour mën a promoteur bi jëndoon na licence yàgg na kon ñi ko séq ñëpp daal nekk nañ en loolu moo waral euh, tey ñu war a ñëw pour officialiser combat bi ñu gis ngeen jóg jëm ci bis bu mag. Mhm. Pape Abdou Fall tëgg Siteu di ndaanaan mais jël ki nga xam ne moom it mooy ndeyi ndaanaan mi Papa mhm. jóge ci defet jël mbër ma ne Papa Sow est na ci waa xam nga Siteu la ma ko waxoon rek euh, dara mëntu yomb ci moom mënoo di laaj yenn kase yi ba pare di tànn adversaire loolu wax naa ko moom biir néeg kon li ko war rek mooy yokk dooleem xam ne dara mënta yomb. kon mënoo daaw seetaat lu woyof naan moom laa bëgg a bëreel et puis beneen bi mooy mënoo soxla Papa Sow yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci mënoo soxla Ama Baldé yéen ñëpp bind ngeen ci wax ci Ama Baldé daan Papa ñu jox la Papa Sow ñu ne risque la kon kay ñu ne bi ngay laaj amaa da ngaa sob dégg nga ma. dégg naa la bu baax. baax na jërëjëf. ñëpp ñu def analyse ñu ci bari daan ne Papa Sow ci côté bi moo gën a xeex mën a xeex xeex bu jaar moo gën a gaaw moo gën a vif te moo bëri loolu yow en tant que manager am li ma la mën a tënkal mooy jëluñu combat bi pour daanu buñ ci xalaatoon daanu duñ ko jël xalaat nañu ne dañ cee war a jaar dem witi leneen ba adversaire beneen bi ñu war a jël sax ñu ngi ciy xalaat ak def suñuy jàngat waaw buñ jógee ci komba bi c'est juste pour won la rek ne la xalaatuñ ci daanu te buñ gëmutoon ne mën nañ cee génn duñ ci dugg donte champion la nag euh, sportif la xam nga ku bëre lu jege ay 30 combat miin nga bés ndaanaan la mbër la mu ñëpp respecté mais daal combat bi ñun am nañ ci yaakaar baax te xalaat nañu ne yàlla dinañu ci may ndam. ku xam si xam ko ci innovation xam ko ci mën gis macha allah. Mhm. Pape Abdou ndaje deuxième ndaje bi di suba nan ngeen dara dikkee. waaw xam nga nag si moom ñoom sax léegi xale yi tooñ ma naan yaay papaay tarkindaa yi mais li ma la ma xamal moom toujours ay mbiram day bette moom. xam naa ne daal xam indi na fi doo cent franc andi moom lu ne lay indi bii nag xaw ma ci lu mu ne nag pour dire vrai pour wax dëgg rek. même daal xam naa ne moom toujours mu créé surprise moom beneen affaire la ndax moom lu ko yàlla defal la du hasard yéen ngeen tuddee ko le phénomène xëy na suba mu indi beneen slogan loolu moom xamuma xama xamunu ma cee wax dara xamaguma ci dara daal waaw. permanence ñu bari ñu ne Siteu dafa nekk ci tànku Ama lay roy. Hmm. tànku nga ko léegi sànq. nga ne ki bëreeg Papa Sow bëri na ak ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé hmm. léegi ñu ne Siteu adversaire yi Papa ak ñoom rien que pour mën loolu moom moo tax ci tànk xalaatu nit ñi la rek mais surtout ku ne xam ne ne mbër la moo xamante ne nii bi mu daanee Malaw Seras bu ngeen fàttali ko demee 2 heures benn émission ne nañ ko jox Lac Rose a ne ko doo ko jël Lac Rose jamono yi mënoo bëre ak moom. bi mu jógee ci Zarko daf ne ma tafaatin laa jël ma ne ko kon say mbokk dal ci man surtout pour woon fitam ak moom moom xalaatam bàyyi fi benn mbër. ma ne ko yow boo jëlee Tapha Tine say mbokk ci moment bii dafa teel kon moo lay wan ne du Ama Balde rek Siteu gëm na ne moom mbër mu ne war naa bëreeg yow moom gëm-gëm boobu la am kon royu ñu ay Ama Balde déedéet toppuñu ko buñ làmb boolee nag dañuy bëreeg moom Ama champion la euh, du hasard mu dem di xëccoo ju roi des arènes kon kooku ne boo sañoon bëreeg moom ndax dafa bokk ci adversaire yi loolu rek la mais du du pour topp ko mais li wértoor daal ku ñu làmb boolee rek matukaay yi war a jël yëpp danañ ko jël di xaar yàlla may ñu ci ndam ndam nag moom suñu borom a ko yor mais sabablu rek même même rëbb bi booy rëbb bi da nga yor fetal yor bal diir tiire yàlla doog a ñëw parce que bul tëdd rek naan yàlla yàlla bay sa tool déedéet na àdduna tëddeewul noonu da ngay sabablu suñu borom doog a ñëw. ñu bari dañ ko dëkkee ci camp boobu noonu. Hmm. camp boobu nan. ka ka tarkindaay daal. gëj nañoo bëri te yaa ngi gis violence. noo gis fa laa bëgg may ma. dañoo bëri de te yaa ngi gis violence. may ma waaw ndax gis nañu dem booy jaay am na combat boo xamante ni combat Alioune Seye 2 ak ki nga xamante ne mooy ñàkk jariñu est-ce que a ngi éviter loolu noonu. Euh, question bi ni nga ko tënkee dama ci àndul. da jël violence solal na ko mbubb nun sol nun loolu laay lànk dama la ma bëgg a dégg mooy violence bi ci arène bi te léeg-léeg sa waa kër yi bu ñu bëree dina am comme ni muy amee ci ñeneen su boobaa nga xam ne da c'est général loolu nag solution la ci ñëpp war a wit yëf yi ñëpp la ndax benn bëñ dafa war a fonk te weex ñu bëri dañuy dund làmb mais du ñëpp ko bëgg euh, bi violence bi amee ci àll say ñax jariñu ku nee ngi wax ba sax bon boo see sortie yi ma def dama naan nañ fàttaliku euh, AS Pikine bi muy dajeeg Casa au moins pour tempérer ñu xam ne violence bi ci nawetaan yi fépp la am mais duñ jël làmb ji rek ne violence moo waral sponsor yi daw loolu dañuy wax rek violence am na ba ci assemblée dañuy xeex ak def lu ne nañ bàyyi loolu li li am solo nag mooy nañ defaraat toogaay bi xam ne boo ne woon dañuy xeexi kenn du ñëw li muy làmb la sport la nañ ko rafetal tey mbër mi bu la yàqalee sa làmb xëy suba liggéey moo xam liggéey bi muy yëngu yow nga xëy def lan kon nañ defaraat entourage bi ñiy entouré xale yi képp kuy yàq bul nangu mu jege la ndax làmb nga am bul nangu ñu yàqal la ko loolu conseil la bu ñuy jox ñëpp man même bu dul sama waa kër su ma gisee nit ñi xeex ci tribune dafay am lu ma yi ndax man damay dund làmb na ma ko bëgg man su ma sañoon benn làmb du yàqu bañ naa ko ba ko attaqué làmb ma dal ci sa kaw gis nga entrepreneur bi doon defar euh, stade Demba Diop euh, danañ ko attaqué ci ay émission ba mujj gi day mujj naan Malick Thiandoum sa kii dafa may attaqué ndax booba daf ne euh, synthétique bi bu ci mbëri tuusee yàq ci du euh, ma du dem 10 ans ma ne ko dañ ko war a nangu jox ko keneen contre ma ko mais c'est juste man ku sànni xeer làmb rek ma dal ci sa kaw ndax man pour man mbëri dama leen a jaboote te it ku ci ne li nga yaakaar ci làmb da ko war a am man làmb dama koy dund bu ma sañoon ko takk ngemb jariñu kon violence bi man maa ko gën a ñaawlu bu ma sañoon do am su làmb jeexee ñuy romb nit ñi di dóor oto yi di këf sama xol bi day jeex bugguma mu demee noonu stade Iba Mar da nga daan gis cordonnier yi bu làmb amee ñuy tëj ñuy jëli xeer te ñooñu làmb ci sax yitteelu leen làmb ji yëkkatu leen mais ñiy gàmmoo ñiy raas dem bokkuñu loolu la ñuy def ci nawetaan yi di ko def ci lépp kon moo lay wan raxas lañu ñu war a def rafetalaat mbir mi yaraat xale yi ñoo xam ne violence bokkul même ci sport même réew mi soxlawu ko loolu moom dama koy ñaawlu fii. per per Max. waaw ñu la nuyoo. Mhm. Euh, sa poulain Siteu. Mhm. mu nekkoon États-Unis doon euh, def foofu li nga xawante ne moom mooy MMA. Mhm. bi ma tasee yow laajte la nga ne ma li nga xamante ne moom mooy préparation MMA ak làmb du ñu benn. bu ñëwee fii ñun ñoo koy gérer. alors mu jógee ci préparation boobu ñu teg ci ay quelques mois. mu daal di ñëw ci làmb xam nañu bi fa nekkoon mu ngi nekkoon ci préparation MMA combat MMA nekk foo woon pour illustration d'ailleurs bi ñu ko gisee état bi bokkut ak par rapport bu daan dem di préparer li nga xamante ne moom mooy làmb moment bii nii ndax ci diggante fii ak làmb ji di am dana génnaat ñëwaat walla fii lay toog. waa xam nga dafa jege. Hmm. gaw ma mu génnaat mais li ma la wax rek MMA foog nga foog nga gaaw foog nga mobile. Hmm. moom sa yaram. ndax sport de combat yëpp la ñu boole def ko benn benn benn benn benn benn kii benn discipline kon moo lay wan ne boo mobilul gaawoo euh, doo ci doo ko doo ko mën a réussir mais nag sama xam-xam bëriwu ci loolu sama xalaatu bopp la rek mais làmb moom xam naa ci tuuti xaw ma ci lu bëri mais xam naa ci tuuti xam naa ne boo wooyofee bu ñu la këfee mën nañ la yegg fu la neexul bala ngaa xalaat ñu daan la moo waral ba nga waxee loolu may la nag fee dafa wooyofoon foog mu jël poids pour mën a taxaw ci ay tànkam bu ko defee li mu bëgg a liggéey mu liggéey ko Euh, loolu nag ñu ngi ciy liggéey te xalaat naa ne bu ñu demee bala cinq bu sumee ko danañu xam ne liggéey nañu incha allah. di ñaan nag suñu borom ñu ci ndam. ci laps de temps bi est-ce que na comme ni nga koy waxee par rapport ak bi muy parce que xam nañ ne sportif pour mu jël euh, benn masse musculaire bi yomb wala bu fekkee jël na ko mën na kaa handicapé ci jour mais bu dee sportif nga xam nga ne liggéey boobu mooy gën a métti sax jël pois parce que la ngay daw muy bëri loolu doo ko daw fii. li mu doon daw da daan daw lu ëpp 15 fii boo noppaloo wàññi rek da jël poids bu dee sportif ko pour 10 moo gën a yomb wàññi poids moo gën a jafe jël poids moo gën a moo gën a yomb moo gën a yomb bu dee xam nga dara ci sport. alors muy bëri ak Papa Sow ñu gis ni première face to face bi Roussel bi xaw naa am tuuti respect bi daw na lu bëri seen diggante. Mm-hmm. te tàmm nañu di gis Siteu bu ñëwee day tàng indi ay slogan yu bees supporters yi di yëngu nga xamante ne danañ ko benn 4 mois ci ginnaaw gars yi di wax ci lii Siteu wax dugg na fii génn fee adversaire bi mu ko tontu bii ñu gis ni lépp dafa sedd lu ko waral. waaw bi li ko waral xam nga keroog yaa ngi dégg bi ko journaliste yi laajee seen mbokk yi bi ñu ko laajee Siteu mooy leen tey face à face andiwuma dañuy présenter affiche bi mais bu ñu tollee ci face à lu ngeen ma laaj naa leen ko wax kon xam naa ne suba. déglu leen ko rek moom borom yu bagage la de. borom yu bagage la borom yu bagage la. borom yu bagage la. moo ñëwaat tuuti perma ci ah. wàllum xeex bi. Mhm. gis nañ ni euh, na ak Zos dóor mu daanu. Mhm. papa bëri ak Zos daan ko ñaar yoon. Mhm. ci wàllum xeex bi fan ngeen ko toll xamante ni ci wàllu vivacité ak rapidité nekk na adversaire waaw papa mën naa xeex mën naa bëri ñun nag tuuti xeex bi man gëm nañ ko naw nañ ko xalaat na mën nañ ci am ndam mais nangul nañ ko mën a xeexam nangul nañ ko mën a bëreem mais ñun li ñu yor doy nañu sëkk te ñu xalaat na ne dañ ci am ndam waaw loolu daal laa gis seen mobilisation suba nan ngeen fas yéene ñëwee ak lan ngay wax euh, supporters yi. non moom xam nga moom waxuma du li ma ko yor. mais même euh, taximaan yeeg yëpp dañ naan dañuy yàkkamti moom am combat ndax dañuy liggéey loolu ko yàlla defal la et boo seetloo Siteu xam nga da tudd yenn mbër yu mag yi ñaan cinquante car quarante car mais Siteu benn car du du taxaw buntu këram te stade bi da koy duy ba nga jaaxle loolu sunu borom lu mu ko defal la. te it nag euh, mi ngi ci kanam ci kanam tuuti nga xam ne nag euh, moom sax dañu naan ko yalmin min la ko xale tuddee yalmin waaw yalmin mooy borom dëkk bi waaw yalmin waaw xale yalmin la nga koy wax walaay boo waree ñu xam ne yalmin ñëw na loolu moom <laughs> bu ñëwee xam ne yalmin ñëw na waaw. Euh, Abou Ndour reer na moom xam na lu yàlla mi ngi séeréer la <laughs> waaw li ci des nag di euh, di woo ñëpp rek ñu defaraat toogaay yi jàpp ci làmb toog naan làmb dee na làmb dee na loolu wax bu yàqu la làmb demande sociale la war a doon ñëpp ci war a dugal seen loxo ndax bu njëkk ba juróom-ñaari écurie la war a juróom ñoo am ci Sénégal léegi ngay tudd ay cent et quelques écuries cent cinquante wala cent soixante écuries kon ni nawetaani mel loolu la làmb mel kon bu làmb ji yi bëriwuñ mën naa yàq lu baree bëri kon na ci ñëpp dugal seen loxo te état bee ci war a jiitu jërëjëf